loolu moom ak àdduna moo ànd dañ koy ñaanal rek Aziz xale bu baax la bari na lu mu def ci làmb bari na lu muy dimbali ay nit euh, responsable la boo xam vraiment mu ngi def social ci goxam bari na ay kër yu mu yor il faut loolu état xam ko ñi ñi ko jàpp xam ko xam ne vraiment euh, bari na lu nekk ci gannaawam bari na ay emploi yu yu muy fay weer bu dee bari na ñu muy dimbali si lekk ak naan si social. te bari na tey xale yu bari doon na leen accompagner ci sponsor bàyyi làmb ba gis nga ne am na combat buy am boo xam ne muy Modou Lo kii Aziz am na si taxawaay. donc ak Gaston production ñooñu am nañ donc lolu aussi euh aussi Nous la Sénégal parce que au Sénégal kon nak ñuy ñaan rek dimbali yoon nit sommes togn togn la bo togné dañ wax da nga li ñu ñu ak ni dossier ministre commerce mu djéggal ko directeur commerce ñu